leader of the opposition United Democratic Party has condemned uh, the uh, comments made by Ahmad Ba, the Minister of Tourism and Culture at the State House in Banjul in the presence of the President and Cabinet Ministers, saying it is repressible and uh, uh, divisive rather, uh, beyond the national outrage and all-around uh, castigation of Mr. Ba's a responsible remark, UDP, which is to draw the attention of our compatriot to the following salient points. The statement added, well, Dabo said it is deeply disappointing that the State House, the symbol of national unity and sovereignty that is maintained by Gambian taxpayers' money, is now a partisan um, stomping ground where the president and his uh, accolades congregate to waste." scarce national resources in the time of COVID-19. The former vice president also states that his party is concerned that under President Adam Barrow, a cabinet minister can stand at a political rally and make a serious allegation about systematic discrimination against a Gambian community without a street of evidence. What is the modus operandi of the Barrow government the rule of law uh, requires due process to, the, uh, to be followed in all cases. Well, firstly, he said, if the allegations the minister said um, or made rather are true, then it is a significant indictment of the Barak government for incompetence and or failure to protect Gambian individuals and communities in the environment or in the enjoyment of their human rights. According to Dabo, uh, the proper thing to do where uh, there are serious allegations of right violation or systematic abuse of power is to investigate and establish the facts of the case not to stand on a podium and make in incendiary comments and baseless allegations. This is a nation of law and not democracy. He further said the systematic discrimination against any Gambian community must be condemned by all Gambians, and the president and the cabinet must do their jobs and, and take all necessary corrective action as soon as, uh, as soon as such systematic abuses are exposed and uh, complaints are made. Well, of course, it's a, um, a long uh, statement, but just to uh, finally say, double said the systematic discrimination uh, happens with uh, an uh, institutional context that is predicated on the rule of law and institution mentioned in the unsubstantiated allegations of Ahmad Bas in the Immigration Department. So it's a long uh, statement but, uh, issued by the uh, UDP, of course, by the party leader. Uh, but just to say, pour ñu yaatal waxtaan bi ci loolu comme ni ngeen ko déggee UDP ñoom tamit eh, génneen nañ eh, bataaxal daal di condemn lu Amat Bah wax ñaawlu ko te tamit wax ci lu bëri eh, statement bi dafa dafa gudda nag ci li nga xamante ne mooy li UDP ak seen njiit li di Ousseynou Dabo lem ci wax léegi nag ci line bi am nañ ki nga xamante ne mooy MC Cham bu. Euh, GDC ndax lu gën a bëri euh, kàddu yu mel nii bu amee dañooy gis ne parti yi bëri nañ ci wax waaye bii daanaka gisuñ ñu bëri wax ci waaye UDP ñoom euh, génn nañ ci statement di ci condemn MC Cham bu GDC youth president national youth president ñu ngi lay nuyu bu baax dalalaat la ci suba si te xam naa ne gars yi nañ la xàmmee ci jotaay ji tey. Eh, kaddu yi Amat Ba wax li ci gën a bari buñ gisee eh, lu mel xew surtout si jamono nguuri Baro da ngay gis ne GDC ñoom tamit nañ bokk ci eh, parti yi nga xamante ñoom ñoo cee nji ci di ci wax di condemn waaye bi gisa gisaguñ ngeen ngeen wax ci lu lu xew ndax da ngeen ci am interest wala lu mel noonu. jërëjëf ah, ah, ah, Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant bu baax ak ñuy déglu programme bi yëpp ñu nekk si biir Gambie ak biti yëpp. Mhm. statement they must not issue for to be condemned uh statement for the good Ahmad Ba. a mhm. ji euh, di as a party uh condemned them conspiracy and you tackle at then politics and one house political platform whatever the what I use as a tribe or this saga. We are getting head what this saga is individual Lulu Dakorunko. ko a GDC then feel like the Lulu Korego, but they get all the police so loro jiri hela pati nge wajja di di kuje ko police ko mu wa call fa amad ba fo kesere ko mu lalla mi ti def tengen bobu waaw do mën a toog rek di saaga ay nit di wax ne ay nit ne ay raat leen whatever wala di yooyu karagut foog naa loolu ñëpp ko bari tam adat area fu mu ko waxee sax moo jaadu wut because pare mu ngi ko wax personne baa ngi toog bara war naa mu pare war na ko mën a withdraw statement am bi tam because tam state house place yi ñëpp la waaw uh, su nekkee da ngeen am problème et comme la immigration si nekku di ID card et particular groupe ou particular tribe loolu yow as a ministre la war def mooy ngeen toog seen cabinet bi ministre of interior moom moo nekk xelal bi naka département def naka immigrations war naa mun a ñëw waxtaan ak ñun discuss avec cabinet level bi not about the political rally war discuss loolu foofu soo war a discuss anything about this about this country about cabinet meeting ngeen discuss loolu waaw so Ababacar was using this for yow yaay Gamben next week dañu guddi gis ne man Gamben laa waaw su nekkee système bi correct comme mun on système am on government am ñoo nekk def ñoo nekk di xaaje di xaajaale try bi ñii ñooy lii ñooy lii bu ko gofe mu nekk mu xam mu ngi ko staffé moom kii kii role la foofu euh, buñ déggee yëf yi nu demee te ñu gis ne GDC teeluñ cee wax ndax dañoo Euh, foogule dañoo wax ne euh, comme lu ñu leen di tuumale euh, GDC tamit parti bi nga xamante ne poli ñoo ci gën a bari te bu Amat Bah waxee lii ñu génn wax dafay mel ni seen interest moo ci ne moo tax waxuñ ci te tamit xëj na buñ ci waxee dana am ñu mer wala gis seen bopp ne xëj na yu mel noonu te dana am lu moo affecté seen parti bi. NPR bi génn na condamné ko lu GDC ñu nekkul ne pôles yi ñoo ëpp ci parti bi parti bi dafa xaaj am na pôle am na séeréer am na xolof am na faana faana am na lu nekk waaw xeet bu nekk am ci parti GDC ñu am ñeen njiiti parti bi moo rek moo tax tawee ñu ma GDC pôle yaa ko ëpp diir wala pôle yi ñun patam yeneen xeetam ñun patam ñun gëmul loolu ñu dañ ne one people one one people one Gambia lu ñu gëm moo tax suñu lekket bi muy dekk bay ci bëri parti bi lekket bu mooy laa woon ne xeet bu nekk ministre ba muy tànn borom pays condamné ko oo dig police bu ñu koo Amadou Ba koy sori waaye Amadou Ba war a jël rek rek ci moom mu ne loolu explique la bu naan mën naa indi problème ci réew mi an loolu gis nañ ko ci au contraire laay Rwanda loolu mooy yaxa Rwanda affaire yi tribe wax dëgg ñoo saaga yéen a tribe waaye nag loolu koragut loolu fa naa gis ñu Gambie war est ce que mën a est ce que war a gis loolu kon Amadou Ba lii mooy ñëpp est ce que nga xam ne jàngiñ Gambien ka war ngaa condamné Amadou Ba te ñoo xam ne ne na ko jox na ko ci kanam président Barrow ak li gën a garaaw mooy président Barrow ngeen nangu muy wax loolu ci kanamam Euh, balaa ñu laa bàyyi rek euh, comme noo ko waxee bu kàddu bi euh, jibee ba léegi ñu bari génn nañ dem ko ñaawlu ko ci li nga xamante ne mooy fi mu ko waxee ak ni nga ko waxee lan nga foog ne moo war a taxawaay nguur gi ak surtout ci ñi nga xamante kilifa yi nga xamante ne tey ñoom lañ yaakaar tegle si kanam waaye tamit ay political figo ndax li gën a bari li mel ni ci politique bi lañ koy gën a gis lan moo war a nekk political party seen taxawaay surtout seen leaders yi ñaax Gambien ci bolo way tamit ci nekk benn ñëpp gis nes bi mu baña gis ay xajalo ay xet ak yu mel nonu wa xam nga dafa am committee mu am parti yëpp interparty committee mi di am parti yëpp mu fa amé ñu fa fa ko ci interparty committee bi li number one mu wax ni dañ koy discourse interparty man comme sometime mu attend meeting on behalf du DPRFDP mu dem day nekk sometime mooy interparty committee bi dafa dafa daaxul li yëpp. waaw hate speech whatever yaa yaa ko wax platform reconciliation sa their cost for gën sa nekk satisfactory nguuram bi gis nañ ko right now ñu ngi rate Gambia ninety six naka ninety six naka naka position the most corrupt government in the world so kon ñoom right now di jël même métuwaay a xelul soo fu yore ñoom koy sama fu ngeen fu ko koy mooy ñoom ci ñoom seen nguur bi so foog naa moom as lu gaaw a def mooy ñoom seen langue seen génn nga xam ne war war nga seen génn mooy reconciliation unify di ko di nekk benn ñoo ko loolu moo war a am wala war a ñëw xam nga lu ko dee waral mooy foo gis whatever position taxaw ci plafond affaire travel yaa desprit affaire yi grand bi yaa xam ne seen loxo xamal ba xamul très bien ko papa président Barrow ba right now bi sam bi iri si kon jël yaa jox na ko Adama bu président Barrow so fu mu nekk nii eh, NRP ak parti daanaka mun naa ne sax NRP nekk amatu parti so it's very frustrating moo tax mu use that tribal line ku gis waxee pôles yi la da mën a am pôles yi ak pôles yi defoon pôles yi xam nañ ne amama lu mu wax ni yëpp waaw lu tax moom wax ko tey parti ñaata yëpp ñaa ngi coupé gis nga au lieu avoir des pôles even polo fi ne ni nga am polo def ay ricard yi di toola even doowaay an one xeet yi ñu ngi ko am te addi bi dee fanaa lu gën a am solo mooy ñeen toog ñoom ñoom ñu discuss ko ay cabinet level ñu oo di ministre of naka interior daay tax ñu gën a tëm waxtaan ko laaj ko la mu la mu waral bi ñii ñu ngay dem am ay dik ba nga am évidence tam as premier ministre war a yaa surtout allégation to xam ne yow yéen si sa onda la nekk sa onda la nekk seen government war ngaa isi évidence yi ne nii def na ko kayit baa ngi nii nii man demoon naa ko sax compléter loolu ko kii si évidence parce que rom eh, MC Thiam jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu di la sant bu baax xam naa ne eh, du ñàkk yéen beneen yoon ñu eh, dalal la ñu gën a yaatal waxtaan bi ci mel nii pour ñu jéem Euh, moytu ndax gis naa ne daal pond bi wureegul ba léegi te ku ne euh, mu ngi ci wala ñu bari ñu ngi ci euh, yéy di yàbbi ba léegi waaye ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant MC Cham bu GDC moom mooy National Youth President thank you very much ah, all right thank you thank you MC su ko defee ñu continuer ci programme bi comme nañ ko waxee woon